bismillahi arrahmani irrahim wa salla allahu ala sayidina muhammadin alfatixi alxaatimi annaasiri alhaadi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim ñeenteelu bind min kitaabi alchamaaili almuhammadiyati lilimaami alxaafid altirmidiyi raxmatullahi aleyh nee na xaddatanaa nettali nañu sufyaan bnu wakic ay doomi wakic qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu jumeyc bnu cumair ay doomi cumair bni abdirahman doomi abdirahman al ijli imlaan ci dicté mm-hmm. alaynaa ci ñun mm-hmm. min kitaab yi tukkee ci téeréem mm-hmm. léeg-léeg ki lay nettali nettali la fekk ci mokkalam la lay nettalee waaye léeg-léeg ñu nettali la fekk ki lay nettali mi ngi tiim téeréem di jàng ngay dégg imlaan ci dicté wolof di ko wax qaala mu ne axbarani xabaare na ma rajulun waay min bani tamimin tukkee ci banu tamim min waladi abi haalata bokk ci doomi abi haalata kuy abu haalata zawji xadijata di jëkkati wala borom kër nday xadijatu ju ndax ndey xadijatu hmm. lu jiitu yonentu sallallahu alayhi ñaar denc nañ ko hmm. abu xaalata mi ci la bokk hmm. doomi abu xaalata jooju yu kan naa ñu koy dàkkantalee aba abdillahi baayi abdillahi koo ko jëlee an ibnin ci doom yoo xam ne doomi direct la mm-hmm. li abi xaalata mm-hmm. ñeel abi xaalata mm-hmm. anil xasan waaw an ibnin ci doom rek la wax li abi xaalata doomi abi xaalata jooju anil xasan jëlee ci xasan ibni aliyin kii doomi sayidna ali radiallahu anhuma qaala moom sayduna xasan mu ne saaltu man de laaj naa xaali sama nijaay hind hinda ngay wax hinda bna abi haalata hind kii doomi abu haala wax na la sànq ne la abu haalata borom kër la woon ci ndey xadijatu lu jiitu yonantu sallallahu alayhi wa sallam am na njaboot mm-hmm. hindu mi njabootam la mm-hmm. da nga fekk ne ndey xadijatoo mm. ñaari hindu danañ ko ko tuddal mm-hmm. mel ni mi góor la mel ni mi jigéen la hindu mii nag mm. dégg nga doomi day xadijatu la di doomi jiit yonantu sallallahu alayhi wa sallam gannaaw doomi xadijatu la mm. te Faatimatu doomi Xadiijatu la te moo jut mm. kon kii nijaayu Xasan la mm-hmm. moo tax ne sa altu laaj naa mm-hmm. xaali sama nijaay mm-hmm. hindab hindab na abi xaalat maanaam sama nijaay ji bokk ak sama ndey te bokkuñ baay wa kaanata nekkoon na moom sama nijaay mm. wasaafan di mm. melolaa laakoon mooy ku mënoon a melal lool mm-hmm. an xilyati nabii ci ni yonente sallallahu alayhi wa mm-hmm. ah, yu rafet yi mel ni takkaay bu ko yàlla takkal alayhi salaatu wa salaam mm-hmm. nee na hind mile ku man ashtahi dana ma foytu dana ma sopp dana bëgg an yasifa mu melal li ma minha ci melow yonantu mm-hmm. yooyule mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. shay lëf ataallaqu goog danaa haju bii ci moom mu wax ma ci melo yonantu yu rafet yi melo yoo xam ne danaa ci mën a haju waaw ndax yonantu sallallahu alayhi wa sallam la dund naa ak moom waaye bi mu fiy jógee gën naa di gone nag waaw yonantu sallallahu alayhi wa mu fiy jógee atum fukk ak ci gàddaay gi mhm. kon boobu xasan mhm. paasewul juróom-ñetti at mhm. wa ana wa kaan wa danaa foytu danaa soppu an yasifu am mellal ak lii ma min haa ci xilyatu nabii ci melow yonantu sallallahu alayhi wa sallam chey an lëf ataallaqu gog danaa haju biyu ci moom fa qaala mu ne moom hind doomi abi xaalata hmm. mu ne kaana nekkoon na hmm. rasulullahi yonentu sallallahu alayhi sallam mm-hmm. faxman mm-hmm. di ku màgg mm-hmm. mu faxaman di kuñ màgg moo xam ci xol yi la ci dënn yi wala ci bët yi mm. sallallahu alayhi sallam mm. soo ko déggee rekk mm. dégg ku màgg mm-hmm. maanaam nga yëg ne mm-hmm. ki may dégg nii ku màgg la mm-hmm. soo janook moom mm. da nga yëg ne mm. ki ma janoog ku màgg la soo ko xoolee it mm. da gis ne ku màgg la sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg ñu wax la nit ku màgg te doo yëg màggaayam léeg-léeg ñu wax la ku màgg nga yëg màggaayam waaye ba nga dajeeg moom doo gis ci moom màgg mm-hmm. yonentu nag sallallahu alayhi wa sallam boo ko déggee mm-hmm. yëg ne ku màgg la mm-hmm. boo ko gisee xam ne ku màgg la boo ko gisee yëg màggaayam ni nga ko yëgee bi nga ko déggee bari na it ku màgg te duñ ko màggal waaye yonentu boo ko gisee foog nga màggal ko dafa màgg ba pare ku ko gis dafa mel ni màggaayam bi moo lay forcer hmm. nga màggal ko nit gis na ko di lox hmm. bay bëgg a daanu yonentu ne ko jógal hmm. man benn man doom raaji benn jigéen bu ne woon màkk rek di lekk di nit ñi daa lekk di lekk sërit kaana nekkoon na rasulullahi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam faxman di ku màgg mu faxaman di kuñ màggal aziman muazaman fi suduri wal uyuni yatala'la'u di melxati wajhuhu kanamam tala'lu alqamari kem melxati weer laylatal badri guddi gëm matee badar weeru fukki guddeeg ñeent ñi muy matee sëkk leer naññi dégg nga boo gisee kanamu yonantu yi sallallahu alayhi wa noonu la meloon mm-hmm. xamuñ lu gën a rafet mm-hmm. melxati weeru badar moo tax ñu misaalee ko mm-hmm. waaye melxati yonantu ak jollik leeram moo ëpp jollik leer ak melxati weeru badar sallallahu alayhi de leeru leeru weer ak rafetaayam ak lu dut weer hmm. ci yonantu la ko tëbboo hmm. sallallahu alayhi wa sallam yetelalaw di melxati wajhu kanamam hmm. tala lu alqamari comme melxati weer laylatal badri guddi gi badar nekkoon na moom yonantu sallallahu alayhi wa di gën a di gën njool min almarbuci ci koo xam ne kuñ diggu doomul taxawaayama xam nga jàngoon nañ ne yonent bi dafa diggu doomu ci taxawaay gàttut njoolut waaye moo sut ku diggu doomu ndax njool la gën a jege ci gàtt waaw nit dana diggu doomu ba pare gën a jege ndaama di diggu doomu gën a jege njool yonent diggu doomu na de mm-hmm. waaye njool nag la gën a def ci diggu doomu mm-hmm. maanaam njoolaay la gën a jege moo tax mu ne at wala moo gën a njool mm-hmm. minal mar ci koo xam ne taxawaayam lu mm-hmm. diggu doomul la wa aqsara moo gën a gàtt minal mushadhabi ci koo xam ne ku ñu uh, ëppal njoolaayam la am na njoolaay yoo xam ne rafetut yonent bi yeggut ca am na ndaama yoo xam ne rafetut mm-hmm. yonentu yeggut ca mm-hmm. moo sut ku diggu doomu waaye yeggut ci njool yollu nag mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam njoolaayam jéggiwutoon dayoo mu ne yonentu bi azimal haamati ku màgg kaangam bopp la bopp bu tuuti rafetut ci góor sallallahu alayhi wa ku digg doomu karaw la mm-hmm. wala kawar la ñuy wax ndax dafa war mm-hmm. ku digg doomu kawar la mm-hmm. kawaram tàlliwut ba nga xam ne boo ko gisee xam ne lii fa tàlleeku mm. waaye lemuwutit ba ëpp kër la ne gaa waaye kër la bu digg doomu la moo tax yonent bi nekkoon na rajil la shaari di aji digg doomu ji kawar diggante kotomu mm-hmm. akub tàlli mm-hmm. kotomu wut ba hëpp mm-hmm. waaye tàlli wutit sallallahu alayhi wa sallam inin faraqat ndem tàqalikoona aqiqatuhu kawari njubbi boppam faraqaha mu tàqaliko ci lu yomb maanaam kawaram lu neexa taqale la mm-hmm. waaw su ko neexee taqale ko taqale bu yomb mm-hmm. maanaam du loo xam ne dafa dëgër bu naqadee mm-hmm. taqale sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam inin faraqa ndem tàqalikoo na wala nam mu naa tàqalikoo aqiqatuhu kawari njubbi boppam faraqaha mu tàqale ko ci lu yomb wa illaa su ko namut falaa du ko tàqale wa illaa su namu ta tàqale ko mm. du ko tàqale mooy su ko neexee tàqale su ko neexee ba noonu mm-hmm. ngir ne karaw gi kawar gi nooy na nangu na mm-hmm. yu jaawisu mm. dana romb mm. dana jéggi sha'ruhu kawaram ci guddaay dana jéggi shahmata udunayhi mm-hmm. lobbi noppam lan lanay lobb mooy wàll gi féetee mm-hmm. suuf mm-hmm. ci nopp te mm-hmm. soxna yi di ci takki jaaru loolay saxmatu kawaram romb na foofu kañ mu ne ida huwa ndem moom waffarahu lawal na ko su lawalee kawaram mu wàcc da gis ne romb na nopp ya maanaam dana dem ba ca mbaggee sax sallallahu alayhi wa sallam azharal lawni aji leer ji melow yaram la mhm. tar rafet la ko mhm. sallallahu alayhi wa sallam mhm. waasi al aji yaatu jëla jëbu tuuti rafetu ci góor ndax kaang kaangam bopp mu dijji àndut ak jëbu ndaw waaw azajjal xawaaji bi moom yonentu sallallahu alayhi wa aji sew te gudd te lunk ay xéen la woon mm-hmm. ay xéenam dañoo sewoon mm-hmm. gudd mm-hmm. ba pare lunk waaw ah. ni nga gisee suñu mbokk soxna yi di sewal seeni xéen ak di ko yokk muy gudd ak di ko taayee muy lunk moom noonu la ko yàlla bindee woon sallallahu alayhi wa mu ne sawaabiga hmm. ñu euh, nasabee ko dégg nasab walla sawaabigu hmm. muy mubtada moo xam ne xabar muy xabar joo xam ne mubtada fañ ko xasab hmm. walla nga ne sawaabiga ñu ñu ñu ñu nasab ko maanaam mu yéen yéen ñuy woy màgg fi hmm? gayri qaranin hmm. ci ludut eh, sawaabixa baal ma ñuy woy jot hmm. ñuy woy jot woy gudd dégg de fii gayri qaranin ci ludut lëkkaloo nag ay yéenam dañoo jot ba boo seetluwut da ngay foog ne ñaari yéen yi dañoo dajee mu ne waaye fii gayri qaranin ci ludut lëkkaloo Hmm? sawaabixa way jot lañ hmm. way lawul ay lëw lañ hmm. ci kawar dégg nga waaye fi xayri qaranin ci lu dut lëkkaloo nag baynahuma nekk na ci diggante ñaari xéenam irqun siddit goo xam ne yu dirruhu dana feesal kook deret ba feeñal ko alxadabu mer waaw su meree te du mer mukk ngir bakkanam bu meree rek dañoo violer luwaay yàlla yi mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam da gis siddit googu nekk ci diggante ñaari mm-hmm. xéen yi mm-hmm. dégg nga génn ndax ma nga fees dell ak deret hmm? mer ma hmm? mer surga la ci xol waaw ku dut mer du taxaw mukk ci défendre dëgg suñ ko jalgate waaw mm-hmm. mer moo xam ne fa lay ëpp doole baaxut de mm-hmm, mm-hmm. waaye ñàkk a mer ba doo am ci yow yëg-yëg buy tax mm. bu ñu violé yoon nga taxaw mm. boobu it baaxul waaw yonentu meram mm. bu ñu violé yoon rekk la te meram nag du ko ñàkk loo sago xaashaahu sallallahu alayhi wa sallam baynahuma nekk na ci seen diggante irqun siddit mm-hmm. yu dirruhu góog mm-hmm. dana feesal ko deret ba feeñal ko alxadabu mer mm-hmm. yonantu sallallahu alayhi wa sallam aqnal irniini uh, ku gudd bakkan la woon ku gudd bakkan la woon maanaam moom yonantu sallallahu alayhi wa bakkanam dafa guddoon hmm. buñ ne àq na al irniin al irniinu ñii mooy bakkan ñu ne mooy alqanaafil anf hmm. gudd gi nekk ci euh, bakkan hmm. gudd ko ba pare bu bakkan bi daal di sew ànd ak benn courbure bu nekk ci digg ba moo gën a rafet ci forme bakkan bi dafay gudd ba pare ca jeexital ga sew mm-hmm. digg ba am ak lunk noonu le mm-hmm. loolu ñuy wax hadab mm-hmm. dafa rafet ci bakkan waaw moo ku ku ku ku ku nekk sang sax ñu lay tuddee al irnin ndax yaa gën a yëkkatiku ci ñi nga nekkal moo tax Cheikh Al di ko tagg ca nuuni ya naan ko huwa al irninu irninul sabixul wajhi du xalqin xasiini maniinun yowma du ithmin maniinun manuunun gayru di ujbin manuuni sallallahu alayhi wa sallam aqnal irniin irniin aji gudd ji irniin la bakkan lahoo ñeel na moom irniin ba yëkkatiku bakkan ba wala guddaay ba Uh-huh. loo ñeel na ko mm-hmm. nuurun leer boo xam ne mm-hmm. yaaluuhu daf koy kawe ba yax yaxsibuhu mm-hmm. baax na yaxsabuhu baax na dana jortu ko man koo xam ne mi ngi koy xool te lam yeta ëmmaluhu seetluwut ko bu baax achamma muy aji yëkkatiku hmm? maanaam boo seetluwut bakkan bi bu baax da ngay gis ne lée da foog ne yëkkatiku gu ëpp la yëkkatiku mm-hmm. te fekk yëkkatiku hut yëkkatiku hëpp mm-hmm. waaye leer ga la mm-hmm. te yëkkatigoogu acham mu sax yëkkatiku gu ñu sant la waaye bosam nag leer la sallallahu alayhi hmm? mu ne yadun anamu lahoo ñeel na uh, irnin ba bakkan ba wala gattaxu bakkan ba nuurun leer goo xam ne yaaluhu daf koy kawe mm-hmm. yaxsabuhu ba di jortu ko mm-hmm. man lam yataammalu ku ko seetluwut mm-hmm. achamma muy aji yëkkatiku waaw moom yonent bi nekkoon na kathal lixyati di aji tal sikkim sikkim bu rëy laa moon sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na di ku nooy ay euh, lex mm-hmm. yonentu ay lexam di loon yoo xam ne dañoo dëgër mm-hmm. dégg nga mm-hmm. euh, du wutoon lexit yu góoxee waaye lex yu rafet yu nooy laa xamee woon sallallahu alayhi wa sallam boli al fami ku euh, màgg gémmiñ la woon sallallahu alayhi wa sallam ndax gémmiñ gu tegtal la ci ne borom ku fasaaxa la mm-hmm. ak gémmiñam na nu muy tuutee mm-hmm. yenn baat yi du leen mën a walla yenn xaraf yi du leen mën a articuler mm-hmm. du leen mën a articuler dali alfami dali alfami aji màgg gémmiñ la woon sallallahu yaatu la ko alayhi salaatu wa arab dañ daan bañ gémmiñ gu ndaw di sant ak tagg gémmiñ gu màgg ak gémmiñ gu yaatu ñu ne mandargaam fasaaxa la mm-hmm. wala sax nee na ñu borom gémmiñ bu yaatu mm-hmm. foo ko fekk dafay bëri wërsëg mm-hmm. mu fëllëjal asnaani ku ñu taqale ay bañam la sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ne yonoon dafa amoon sàkkari yàlla ci kaw ak ci suuf waaye bañam yépp nag dañoo tàqalikoo woon tàqaliko bu rafet mm-hmm. ndax bëñ am na nu muy tàqee du rafet mm-hmm. waaw mm-hmm. diggante bëñam yi fañ tàqalikoo tàqalikoo yu rafet sallallahu alayhi wa sallam daqiqal masrubati aji sew de nga karaw yi euh, euh, dënn yu wàcc ba ca euh, jumbax bala waaw almasrubatu mooy kawar yooyu nga xam ne dafay jóge ci dënn bi wàcc ba ci jumbax bi waaye dafa mel ni benn rëdd la nag moo tax mu ne daf ko sewle woon daqiqal masrubati benn rëdd dafa mel ni rëdd su sew soo xam ne ci dënn bi la jóge solo alayhi wa sallam wàcc ba ci ba ci ba ci jumbax bi dana ko dana ko tuddaat ci kanam nee na ka anna unqahu dafa mel na doqu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ci rafet ak ci weex tàll gi mu weexoon jiidu dumyatin loosu poupée la loo xam ne ñu ko defaree ivoire ba ñu ñey wala xaalis fii safaa il ci selluk xaalis waaw mm-hmm. ah. mm-hmm. xam nga poupée bu ñu defar loosam ba mu rafet te ñu mm. defaree ko ba ñu ñey mm. nga xam ne dafay wex tàll wala ñu mm. defaree ko xaalis nga xam ne dafay wex tàll nee na noonu la doq yonantu meloon mm-hmm. moo ko dàq sax sallallahu alayhi wa sallam waaw ah. mu ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam mu'tadilal xalqi aji yemoo ji bind la waaw mhm. yonentu daraam xëpput mhm. sallallahu alayhi wa sallam mhm. waaye daraam manquéwut lépp a mët tolloo ni mu war a tollooxee alayhi salaatu wa baadinun aji xam yaram la waaye aji xam yaram joo xam ne mutamasikun aji jàppante la yaramam yépp a jàppante maanaam dara rëccut fi mu war a ne waaw duut koo xam ne dafa dégg pataa dégg nga ba loola ëpp mm-hmm. waaye dul koo xam ne dafa jeex mm-hmm. ba jeex bu ëpp mm-hmm. dafa nekkoon boroom doole lool kaar waaye taxut mu am yaram wu ëpp taxutit mu am yaram wu jàppantewut baadinun aji jëmm la mutamasikun aji jàppante lay cër sallallahu alayhi wa baadinun mm-hmm. mutamasikun mm-hmm. ok mm-hmm. sawaa'ul batni mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala sawa al batni aji yemoo ji biir la wa sadri ak dënn arida sadri aji yaatu ji dënn la baida ma ki almankibayni mm-hmm. aji sori la la nekk ci diggante ñaari waggam daxmal mm-hmm. karadiisi mm-hmm. aji màgg ji boppi yax la anwaral mutajarridi mm. aji leer la li raflewu ci yaramam mm. li nga xam ne amut karaw ci yaramam mm-hmm. wala yére mm-hmm. newut ca da gis ne dafa leer naññi mm-hmm. mawsuula ma bayna lëbbati mm. ku ñu jokkale la nekk ci diggante pottaxam la wa surrati ak eh, jumbaxam bi shaarin ci kawar yajri góog dana dawkal xatti mel ni rëdd mooy lam waxoon ci masrabatu wala masrubatu mm-hmm. aariyat tat mm-hmm. aji raflew ji ñaari ween la mm-hmm. wal batni ak biir mimma siwa zalika ci lu dut loolu lu dul yi nii rek da ngay gis ne ci ay weenam wala ci biiram amu dara ci kawar waaye ashara ziraayni aji kawaru ji dégg nga ay loxo la xasabu mm. wal mankibayni mm. ak i wagg mm. wa aali sadri ak kaw way kawee ji dënnam mm-hmm. boo xoolee xasabum ya ak mbagg ak mbaggam ya ak way kawee ji dënnam da nga cey gis kawar mm-hmm. tawila zandayni aji gudd ji ñaari loxo la moom yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam Mhm. zandu moom mooy li ñuy tuddee bara mhm. ay baraaham dafa guddoon moom mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xasabam dañoo guddoon rahbar raaxati aji yaatu ju tënk la chathnal kaffayni aji tat te eh, rafetle ay tënk la ak ñaari ndëgu waaw ay sathnal kaffayni aji tat ji ñaari tënk la ak i ndëgoom mhm. loolu nag yaxya la mhm. ñoo ñoo dijj tat mhm. waaye der ba moom fa nooy saa ilal atraafi moom yonent bi sallallahu alayhi wa guddi ji baaraam la aw qaala wala dafa wax ne shaa ilal atraafi dégg nga la du siin kii aji raa solo ji dafay sikk mu ne wala dafa ne shaail al atraafi mm-hmm, mm-hmm. waaye ñaar yëpp bokk lu ñuy firi mm. xumsaan al axmasayni mm. moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam mm. aji yëkkatigu biir eh, ndëgu la mm-hmm. maanaam tànkam yi la ca biir dafa yëkkatiku ba nga xam ne du laal suuf sallallahu alayhi wa sallam masxal qadamayni aji rattax ji ndëgu la mooy tànkam yan bu ba dana day yëkkati ko anuma ci ñoom hmm. almaa u ndox hmm. mooy boo ca defee ndox hmm. ndox du téye ndox mi am na nu tànk yi mel boo ca boo ca sottee ndox fa koy téye yonentu nag ay tànkam fara tax ba du téye ndox ida zaala ndem dox na mu dem dëñ zaala mu dëñ xalaan ci buddeeku muy wanee doole joo xam ne yàlla mayoon na ko ko yax tuu moom yonentu sallallahu alayhi wa bu daan dox dafay jéego takaffiyan mooy dox boo xam ne dox bu gaaw la hmm. buddeeku gi muy buddeeku hmm. ak gaawaay bi hmm. ah, dégg nga ak rëyaayu jéego yi lay wane yaxtoo dafay jéego takaffiyan jéego yoo xam ne dafay gaaw dafay mag wayam shi muy dox xaw na ndànk nag ngir toroxloom zari al mishyati aji yaatu ji dégg nga euh, aji gaaw ju dox la mm-hmm. moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. wala nga ne mm-hmm. aji yaatu ji jéego la ay jéegoom dafa réyoon ida masha a ndem dox na ka annama yen daanaka dafay sippeeku min sababin ci mbartal wa ida iltafata buy gestu iltafata mu gestu jamian mboole seen yaramam yëpp lay gestu xaafidat tarfi nekkoon moom yonent bi alayhi wa di aji suufe xool mm. dégg nga xaafida tarfi mm-hmm. nekk koo xam ne aji suufe ji aji suufel bëtam la mm-hmm. nazaruhu xoolam ilal ardi jëm ci suuf mm-hmm. atwalu moo gën a yàgg te gën a gudd min nazarihi ci xoolam ila samaayi jëm ci asamaan kerta gaa tax jullu nazarihi li hmm. ëpp ci xoolam almulaxadatu hmm. mooy gendeeku hmm. du ubbi bëtam ba mu jeex kersaga la yasuuqu dafay màng asxaabahu ay àndandoom daf leen di jiital ngir di leen gendeeku wa yabduru dégg nga te muy njëkkee di tàmbali man laqiya ku mu dajeel bi salaami ci nuyoo moo lay njëkk a nuyu sallallahu wa sallam hadis ji nag am na ak doxfu giñ ci wax hmm. ngir yi ñenn ñuñ tudd ci riwaayatu bi hmm. waaye lépp luñ ci waxit mi ngi ci ay ahadis yu wér yuy wane ne noonu la yonantu sallallahu alayhi wa sallam hmm. meloon hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amin